ndax élection yooyu élection citoyenne mooy fa nga dëkk lafa fa état joxe ci pouvoir pour ñu gérer ko nga bokk ci ñi koy saytu ak di ko gérer ma ni woon bëgguma nit ñi naan dégg na dama bëgg a wax suma làmmiñ man Moustapha Cissé Lo 96 ba léegi élection locale yu am bokk naa ci te damay jiite waaye nag maa ngi ko doon def Mbàkke léegi Dakar laay féete fi laay voté ma jàpp ne bu dee légitimité ci sama parti wala muy sonn ci sa parti war na maa mën a laaj jiite mairie bu Dakar ma teel a wax ni candidat la bëgg naa jiite waa Dakar bu dee bëgg nañ maa jiite danaa joxe it moyen yi mën a dem ci élection boobu mais dama koy tàmbaleeg wax suma parti ñu jàppale ma muy président de la république bi nga xam ne dama koo lebal li ma ko lebal mooy daa bëgg président de la république man bëgguma ko ma topp ci gannaawam wutal ko ko mu am ñaari mandat ma nekk député joxuñu ma assemblée nationale jox ko keneen ma nangu mu des nag li nga xam ne ñi koy joxe ñi ngi ci biir quartier yi ak gox yi ñu war ci jëm ma dëkk Dakar muy dëkk bu mag te mairie bi Dakar bi di lu am solo ci dox bi ma ni jàpp naa man ak ñenn ñoo xam ne sumay xarit lañu ak ñu ma wóolu bëgg nañu soutenir sama candidature pour ñu dem ci élection maa ngi woo coalition bi di woo pour ñu def ma candidat pour la mairie de Dakar def naa bu ñu ci jàppee rek danaa ci mën a jot bu yoon ndax loolu parti social defal nañ ko xalifa Pape Diop PDS defal na ko Mamadou Diop parti socialiste defal na ko kon li ma defal Macky Sall defe naa war nañ ma ko mën a defal ma ne kon danaa yëglu xam ne bëgg naa am coalition ànd defar dakaar boo xam ne bii bu nu juboo ci sunu parti te jiital ma ñun ñëpp dañ ciy ànd bu nu waxee te juboowu ñu nag ku nekk seet ñi nga mën a àndal ñu jéem a dem ci élection yi